suñu mbokki kilifa diine fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jéggal di leen ci bis bu nag bi nga xam ne bis la boo xam ne di jóge ci jaamu yàlla ñëw di ko feetu koor nag dañ ko sëñ bi waxee woon ci bàyyi lekk bàyyi naan loolu moo ci gën tuuti kon nag bu jógee ci koor da xam ne ab yóbbal la ndax lépp loo gis am na asaka asaka yaram mooy koor ku ne xam na ne koor yàlla dégg lu diglu kenn lu mu adama lu mënut lépp lu ndigal doomu aadama rek loola da ko mën mu dëggal ko waaye ku ne xam ne njariñu koor ci ñi nga xam ne médecine sax xam nañ ne koor dafa am njariñ ci nit ndax régime la boo xam ne fukki weer rek benn nga di ko jëfandikoo benn weer rek nga jël ko régime ko daanaka boo xoolee wér gi am ci weer woowu ñu bari buñ ko ci am kon sëñ bi ngi leen nuyu di leen sant bu gërëm di sëñ tur suñu àll yi mi nga xam ne dafa doon teew teew sëñ Mamour may sàkku ci bokki judi yëpp bu ngeen kenn jóg ñu teewlu kenn ko jàng Faatiha fukki lixlaas ak benn ñaanal kilifa nga xam ne moo sos ba tey barab bii muy sëñ Maam Mor yàlla bàyyi yàlla yokk ay leer yokk ay yërmande yokk njëgal tas yu barkeem waaye eh, di ñaanal njaboot gi fi bàyyi ci ñu sëñ Moussa ak rakkam yëpp ak taalibi sëñ bi yëpp ak mbokki sëñ bi yëpp yàlla bàyyi la fi tamit fan ak wér xam naa waxtaan tey du gudd ndax lu mel ne barab bii bu ma fi toogee rek dama fi demee ne ko xaw a ñàkk nekk ndax jëm ji daan toog so bu ma teewee fii day mel dafa teg soo kanam muy du métti ci man ndax day waar la waaye nañu jéem rek ndax àdduna noonu la demee kon maa ngi tuub te jéggul kàddu yi lépp lu ci jure nañ xam ne sama kilifa yi moom laa ko waxal waaye lu ci dëng nañ xam ne ci man mi la dama bi ñu ñëw sama ne ko ne ko nga jiite lépp man topp ci ginnaaw rek moo gën a ci ñun ndigal moom boo mën a defal bu mu defal rek may fàttali sama bopp dina fàttali rek yéen bokk yi bokk taalibe yi ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi ak yàqu-yàqu jamono fi mu toll naa leen ci la ñu war a waxtaan tey jii ñëpp ñu bàyyi xel ci nit ñi nga xam ne dafa mel ne ay jikko moo jikko yi dafa am yu yàqu yoo xam ne ni war nañu ko defaraat loolu nag ci ñu ngi koy tàmbalee ci yaram kër gi ci tout tànk yi fii sax moom lu Sëñ Abdou Khadre am na ku jik mos a dikk ci Sëñ Abdou Khadre ni ko dañoo bëgg defar si lislaam mu ne ko demal fi lislaam yàqu fi lislaam yàqu fi kon li li li misaal moom rek mooy rek ji koor gi daanaka dafa mel tout tànk yi ñoo doon la ci ci dëkk bépp daan tout tànk yi nga xam ne moom amaguñ bàkkaar sax ñoo doon naafile ci dëkk bi loolu kon mel ne continuer Sëriñ Tuubaa dafa am waaye kon ñu gën a góorgóorlu ci defar yar yar jikko yi yar làmm yi waaye yar yar yar yar yar jëmm yi euh, ndax fii jamono toll képp koo xam ne am nga xalaat wala ngay xalaat dara wala ngaa tiir wala ngaa jàq ndax kersa daa mel dafa jeex ci réew mi wala bu jeexut tiim ñu bari ñàkk nañ ko ci wax kilifa goo xam ne sa nekku ci nga xamoo ko mosoo ko gis kay wax ci moom lu ñaaw loo xam ne warul boo teewoon a ne def na ko te loolu lépp suñu tubaab tere woon nañu ko ñoom dañu waxoon ne wala am loo xam ne tàddee sa bopp la mooy nekk ci dërëm di ko ŋàññi te ñu googa boo jàkkaarlu xamul xamoo ko yoru dara yoru sa njël yoru si dara nga di ko xas di di ko wax lu bon nit ki du bañ doomu aadama xaj na koy contre wala ngay am ko système ngay contre ngay contre ci moom système nag mooy jëf ni ngay jëfandikoo moom rek waaye doomu aadama kenn ko bañ doomu aadama kenn contre doomu aadama kenn ko wax lu ñaaw kon may wax sama bopp ak ñi ma ko wax ñu génn góorgóorluwaat te mm, sàmm sunuy jukko yi ak sunu làmm yi fas yéene góorgóorlu ci yàlla ndax nit ki bu amee jot rek baaxut ndax suñu bay jaxte woon nee na mu yël jot ko amu jot ñëpp ko jot du jot kenn moom wax ne jamono ji fi xew asma axlaax yi lañ koy wax di de maanaam di jikko la jikko yi ni mu yàqoo mooy ñu waxoon ne xastee fi xew ak fen kuy mer di wax sa ayib kuy bëgg ci yow di la wax loo xam ne gëmu ko kuy bëgg ci yow ne yaa gën ñëpp saa su mere ci yow ne ñëpp la gën wax si ay wane ko kon nit ki kenn mën daw mbiram ba ba jël ko euh, daal di daal di daal di daal di li xew ci jamono ji mën na fukkee fa juróom ak def déglu ma nettali ko rëy ak kañaan ak dogu mbokk ak di xas ko la gën fopp ak di yem ko la man ak jëw nit ak beru ko ak leb ak leb te doo xam fay ak fecc wëllëre ak wayaani seex ku am la nga dañ ko yii yëpp la ay mbir la woon yoo xam ne moom tënkal nañu ko avant jamono yu àdd te ko sax xaj na mën na yi waaye mi ngi door am ñëpp gis nañ ko xas la gën fuuf yàqab deram kuñ ne diw sàngam borom xam-xam wala nga ne ah xam tane yeewu na diw sàngam ah, day moom ko jubla nga ne ah kii rek wala diw sàngam de moo moo kii nangam ngir yow ba ñëw ba ñëw ba ñëw système bi jëmm nga bañ yow jëmm bi nag ko bañ doomu aadama kenn wul nit ki ne mën ngaa bañ a bañ a bokk fu ngeen jëm wala bañ a bokk ay xalaat nga nga ne ak ah, système nangam doxub ci man waaye jëmm doomu aadama kéwu ko bañ ndax salaatu aadama raaytu yaa faa yox ju laa loolu suñu tuwaa wax nañu ko kon ñu gën a yàlla suñu bopp gën a yàlla suñu njaboot gën a góorgóorlu te kenn ku ne jàpp jël jël si àgg nañ ci loolu sal sallallahu alayhi wa muy jamono iman dana mel ne aw xal aw xal sawar ci kaw kaw dénk ci aw loxo ndax day tàng jër waxal boo ci mu tekki ndax a nañ ci foofu daanaka assañ fi ci ci ci lislaam ndax boo dégloo rek di xew ci jamono da tiit njàq xam ne yow mii kat ñi ñi ci axiru zaman lañ nekk axiru zaman nag du càggee nag la sëñ Abdoulaye waxoon nee na àdduna du càggee na jëkk ni ñu baax bu fekkee nitu yàlla la gis bare ba dem nañ bu dee nitu àdduna yi gis ñu bare dem nañ ci bu dee ñoo xam ne dañoo kenn du fii barab bi am ñu fa ñëw te teewuñ fi tey kilifa gi sëñ tam barab bi anam ana way juróom ana ñooñ ana ñooñ ñëpp dañuy dem ci lekk kon nañu rafetal suñu dem waaye lii mu bàyyi ku sayoon boo jógee bàyyi ko fi te mooy continuité mooy def lii sas daare alxuraan su ay jamaa ak jàkka nit ñi dafa dajaloo tey jii ku julli si ku julli si jotaay bi rek si maam Mor am ñu tuyaaba tey jii ndax moo sosoon lii bu fekkoon da ko sosoon leen tamit loolu noonu la demee noonu bu rafet ba ay aju àdduna tukki da yoon ñëpp àdduna tukki ñëpp ci ñëpp ci jariñu lu ñu ci waa def da nga ci am tuyaaba joxe waaye boo defee benn bu ñaaw ci keneen koo roy ëllëg si bu fi àdduna tukki yaa ngi ñooñu ko bokk kon moom yàlla ko yàlla fa cet ndax jëf jëf na jëf joo xam ne ñëpp gisañ ko ni mu def yi kon mu Musaa ndigal laa ngi noonu ngeen gën a wéy rek te ñu ñu fas yéene ànd yéen ci lépp rek lépp damaa ko sama digal kilifa gii teew ñu nuyu bokk yi teew yëpp xëy na ni ma waxee rek teelu ma ngir mën a waxtaan tey jii euh, ndax bu ma rek li ma yëg ci sama kii na ngeen ni rek yàlla xam ne dama xaw a mel na ku wàññiku lu bare bare bare ci sama sama sama sama ci sama li ma yëg waaye ma gën a yàlla rek te di ñaanal sama borom fi ñëpp rek ba yéen yi xam ne yàlla sunu borom am na ko ci ñun ñu ñu ñu muy taxawal suñu tuwaay yoram wi yàlla yàlla dimbali ñu ci waaw góor góorgóorlu baax te te rafet njort te rafet njort suñu bopp te rafet njort suñu bokk jullit yi rafet mbokk suñu bokk taalibe yi waaye dëkk bi bari na xam ne sax ay mbokk lañu waaye boo tuddee boo tuddee mbokk yi ku lu baax ci kéem ah koo di ay durkat la wala nangam la bu fekkee da nga wax ci osal ñu ah mën na ko attan na ko kenn du may na kenn dara loolu baaxul suñ bi doomu aadama rafet njort ñu njort sa sax bu defee bu defee bu defee bu defee njuumte war nga ko war nga ko suturaal sagal ko te te te nëbbal ko ayu yooyee Euh, kon dafa mel ne dañu war a delluwaat téere bi ñuy wax nax jul xadaa il xaaj euh, dafa naa war nañ ko war nañ ko tàmbalee jàng ni jàngee ba sin miim ci daara ji li ko war tàmbalee jàngale ci biir daara yi mooy tam nax ju ci bopp dañu ko war a tatbiix di ko di ko appliqué di ko jëfandikoo ci suñu bopp di ko jëfandikoo suñu njaboot euh, ngir bu ñu ko jëfandikoo dara jàqu suñu tuwaa lépp waajal na ko bàyyil na ko fi crise bi am ci àdduna sépp bu ñu gisee mu jàngoñ nax ju rek wala ñu dégg ko dëgg dëgg dégg kenn ko defati waaye mbir day am politique ñëw nga wax ci lu bari xaab teew ka ngay politique xamoo ko xamu la boo ci yow ngay perte jëriñoo la tas amul amul njëriñ nga nga yàq ngay nga yàq ngay ngay sa temps yàq sa der yàq deram te yow mosoo ko gis xamula xamula loo ko koy jëru ko kenn ku ne war ngaa am euh, fexe ba sa temps bi ngay toog di ko di ko di ko di wax di wax nit wala nangam nga nga tudd ma salla ala muhammad boo ko waxee baax na laa ilaha illa muhammad lépp day waaye topp ci wax ni yoo xam ne wër na la tàddeel nekk ci problème boo xam see yónneeku ci kon nañ ko wattandiku ñëpp te góorgóorlu ci te gën a wakkaat dëkk bi gën a wakkaat sëñ Tuubaa te xam ne ñun am nañu kenn amut nit ki bu amee lu kenn amut xoolee ci kilifa gi nga xam moom fi yàlla teg yàlla na ko yàlla bàyyi te wéral ko nee nañ xool ci moom na ni mu def nag defoon ko ay kilifaam ñun ñëpp nañ ko def mooy bàyyi ko suñu bopp bàyyi ko boppam nit ki bu amee si kilifa dañ koy bàyyi sa bopp bàyyi ko boppam boo ko defee rek dara doo juum waaye moom bu ñu rey ci moom day kenn du juum ndax euh, almasalu saafi bi mu def fii muy muy jotaay bi nga xam ne ko def takkusaan bu jot ci koor gi ñu jàng xasida yi képp ko dugg rek yëg nga ne am nga loo yëg sa bopp te loolu moom boo xam ne saa bu takk sanjotee mbokk yi yëpp dañ fa teew mbokk taalib yi ñu mën am mu delloosi ko jege si ko ngi nit ñi bañ am am da bañ am jot ndax am na heure yooyu boo fa toog yaa ngi seet leen wala yaa ngi loo xam jëru ko waaye boo fa teewee teew nga fa teew nga xam ne sa róom yi dund ak roona li koy dundal mooy jaamu yàlla ak tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku li nga xam ne mi ngi suñu kanam te du jaas mukk ci kenn muy faatu euh, balaa na ko fanaan di fanaan julli asan set fekk amu jën waaye toog benn saa fàttaliku yow man xiyam képp moo gën moo gën moo gën fanaan fanaan julli asan set kon nañu góor bu baax euh, man diggante démb ak bëkki démb rek ñetti ñetti fan yi ay bis gi bees rek am naa ñàkk ñaari xarit yoo xam ne kenn ku ne jàppoon naa ne moom mënut a dem na ndax du xalaat may sàkk ñu ñaanal leen ko muy professeur Issa Ndiaye ab docteur woon boo xam ne moo initiative moo moo initié woon euh, consultation gratuite ñuy faj ci màggal gi nga xam ne màggal gu mag gi moo dajal médecin médecin yi Sénégal yëpp de imtuwaa gi ñuy faj ni ñi ngi yàlla kenn fay dara moom moom moom ci ab xalaatam na ku ñuy wax Omar Youm astafurlah ku moo moo moo daaw rek ci màggal gu mag gi rek ñaar téeméer na bi yéen suñ suñ di doon jëf joo xam daan jëf jëf tasawuf liggéey yàlla ci bindee fi ñun ñu am nañu sàq ñu te mosuñu ko gis maam moom kon ñu sàq ngeen te ñoo bu fekkee àll dong la kooku war a fàtte am na lu fa jaw waaye yàlla mooy dikk ci moom xaaru ko hmm? professeur Ndiaye moom kasaare war fa la day fàtt ba kii day fàtt ko man sàq ngeen ñaan leen ñaan la la ñoom itam waaw ndax loolu xew ay bind yu bees la fan yii day mel ne nekkatu fi daanaka ndax lu mel noonu rek bu saabu liggéey si kaw euh, nga di ko fàttaliku day day day doon yéeme démb rek maa ngi ci barabu sëñ Falilu bi di ko siyaare waaye moo di mooy xool xool jëmm ji tëddoo fii ak ni ko nit ñi war maa lay saa bu ñu dikkee nit ñi teg ci kanam ñu waj waj ku ne wax loolu te nit ki fekkee mooy dund yow mu musoo musoo musoo jege ci néegam di wax dara nekkat fii da nga yaakaar jàkkaarloo yow dafa ma jàkkaarloo yow kon nañu a yokk war ma ci barab yi gën koy yokk ci kilifa yi gën koy yokk suñu diggante suñu bokk taalibe kon loolu laa ama ci wax maa ngi leen jéggalu baax tey sant bokk fi teew imaam baara suñ baara maa ngi siyaare suñ seex maa ngi siyaare suñ mbàkke suñ maa ngi siyaare seex bi sa yëpp ak suñ moodu suñu xol sedd guy taxaw ngeen suñu maam moo taxawul ngeen ko ñu sant suñu mbokk njaayeen yi ñooñu amul lër lañ ak ñu fi teew ñëpp ku ku lim da nga jum ndax xool ci sama ñëpp teew waaye ñëpp teew nañ sama kon ñu ngi ñaan rek yàlla nga ko teew at yu gi wala julli yàlla bu nekk suñu julli yàlla ñu fi yàlla ñu yàlla nga suñu yàlla jégal suñu rëcc yëpp saa yi baatin kon sëñ bi danga ma jégal mbàkki kaddu yu yëkkati lu jub rek na xam ne loolu laa bëggoon loolu la loolu nga ma yéene loolu nga waxoon ma def ko waaye lu ci dëng ma maa mënut wax sama làmmiñ surtout waaye li ma li ma li ma li ma yéene ci sama xol bi mënu ko wax ci sama làmmiñ yi kon nañ ko bàyyi yàlla rek mu mu mu keel ñu ko te góorgóor bu baax te ñaan rek yàlla nanguñu suñu jaamu yàlla nangu lu seen gopp yàlla jéggal ñu jéggal ñu yéen defal jàmm fii ak fi ñu jëm am jàmm ci réew mi te ñëpp dal seen xel te te rafet jot waaw ni ma ko waxee rek ne ñëpp rek ci kilifa te diilu ko te bàyyi ko suñu bopp bàyyi ko boppam rek ko lépp dina baax ñun murid daa amuñu problème ku am problème amu ko ci ndax kii moom gisee muy doxee lépp lu tàng buñ ko bu ko yëgee sedd na saa si ni muy doxee sëñ Tuubaa rek la fi nekkal kon ñu ñuy topp njabootu di njabootu sëñ bi nañ fexe dañ wax ne am euh, am ruur kat boroomu jur mooy fayam ruur waaye aw yadd bi daal ci ko jur ga lay dal kon nañ fexe nañ fexe bañ a rek te góorgóorlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu